waaw waaw petit déjeuner petit déjeuner yee Kazu Rajab bi nag boo dara neex nag traiteur yaa ngay traité nag ci xaaju guddi bi traiteur yaa ngay traité dañoo ba yee xoolal lii laay lay la lu ajatu maam Ndiaye traiteur traité nañu waaye nga nag baas bi dee ngi mel ni jaam barka laaju fàllu baas baa ngi mel ni jaam laay lay la lu yii seize VIP booba baas oh laay baas bi de comme kilim yée traiteur yaa ngay traité ajatu awa ama loo wax nga de yaa ngay traité xaaju guddi heure bi maa ngi leen way yo dëgg la kay kas rajo maam Ndiaye Savon nag yaa ngi wàcc waaw nag yaa ngi wàcc nag yi nag yi nag yi ku mën da ngay def nag yaa ngi wàcc waajal leen waajal leen takku leen ba dëgër nag yaa ngi wàcc gi dekk bi yëngu c'est mam jaay Savon kastu radio bi xala yaa ngi defar tante bi dekk bi yëngu orne bi xol len ñu ngi ni di orné xoolal laax yi koy def lekk geeg naan gi mangé bois da la yaay serigne fallu mi ngi ni tante bi directeur yaa ngi di rangale la yéen a nak, nag man nak ah yéen man nak wa jaxa jaxaa man nak tubarikallah mam jaay sabo ngeen wuy aladi fàllu rek lo yaaka xoolal li dëgg la daa yokkaat ay bass ni xala yaangi ni tok ay kon jaxaa nga dekk dëkk maam Njaay Savon rey ray ray nagam xala yaangi fess sis nak dekk dëkk bi yëngu ak ay xar awa ama hmm? sama suñu xarit bu fànn kenn du mom kenn du mom de lu mu xon def nako lu mu xon lepp def nako da waaye yow tamit di defam. tante baangi ngi ni ñuy defal gisoo dafa yokkaat baas yi sax xala yaangi di bassat baasaat yokkaat séen barke yonent um bi yaayu serigne Fallou sama waji ji xoolal li aku <laughs> sonn nga na xol ko da sonu bay teud nelaw. sëriñ Fallou nag daa invité ay xale invité ay tax ma invité ay ndaw. mag nga ne lan. xanaa sama xol sedd guy ci yow rek. ndeysaan ndax Mamour Ndao ba ma lay jël. Mm-hmm. juróom benn weer nga am. ndeysaan ba juróom ñaari weer. Mm-hmm. Mamour Ndao bañaloo ma dara. ngay sonn ci man guddi sonn ci man bëccëg. maamu ndaw loo mën nañu yéen ba mu ko mën déwén. amiin maamu ndaw sama xol bi sedd na guy ci yow. ndeysaan maamu ndaw métti woon na waaye neex na. bilaay ndeysaan ko métti woon na ci yeetaa. waaye neex na ci yiitaa. ndax tey jii lu ma jooy rek faj nga ko. ndeysaan. ba ngay ba ngay def bu doog sokolaa nga ne ma ah bàjjen damaa bëgg def bu doog sokolaa. bilaay ndeysaan. man la bu doog sokolaa boobu ngay def bu ëllëgee ay nag ngay def. bilaay dëgg la. ci ay ganaar bilaay ndeysaan ñu ne waa dégg ca déwén sa mhm. nga ja teg sa ñetti nag mhm. ba ca topp nga def sa ñeenti nag dëgg la tey nga indil ma juróomi nag bilaay ndeysaan loo ma deseel te des na de ak lay la sama da indi li nga bëgg ah kon saw la yow nga ne lan kontaan nga muural ma ko nga ne sama maama ngi sama maam bi nga naan bandi la <laughs> bilaay ndeysaan sama maam a ngi kontaan nga kontaan naa fa nga bëgg a egg yàlla na fa yàlla egg amin waay li nga bëgg ci say Tuuba yàlla ko yàlla ko am ndeysaan bilaay ndeysaan ndox mi daanu na dangaa bëgg bilaay ndeysaan suñu waa kër ñoo def lii de barki sëñ Fallou Mbacke bilaay Jallo yow nga ne nga ni ma waxul kenn du wax barki sëñ Fallou yow Saali. billaay ak Serigne Touba yaa ñu jàppale. billaay jooy ñu dara nag. ndeysaan billaay li sa bàjjen wax rek ne lu naqari woon rek neex na. billaay billaay wallaahi wal kitaabi loo bëgg yal na la ko yàlla dafa. yaa baax rek Cheikh Modou Kara yi. billaay ndeysaan ñoo lay ñaanal te dañoo liggéeyal nag. Cheikh Modou Kara dama koy wax chaque jour. barki Serigne Touba rek nga fekk sama doom ji. ndeysaan nga xamante ne kenn xamut lan la. <laughs> aywaay nga jël di ko fayal. Mm-hmm. xam nga ni kii lu ci waay. ndeysaan maama fekk ko jël di ko bilaay ndeysaan dem di lu ne mu di la ko def. bilaay ndeysaan boole sa alal ak sa lépp di ñu ko jox. bilaay ba dépense ba nga koy bàyyi. waaw ba sax da ko fa bàyyi. ndeysaan waaw bu dee da ngay rey xar da ngay indi sa ndawal fii ci kër gi. waaw looy ko fii kër na àddina bi yëpp xam ne la ngay def. fii nga ko njëkkee fii bilaay ndeysaan bilaay sa kanam nga kanam. ren yaa ngi ko mën déwén. bilaay ndeysaan sunu waa kër yi ñoo kontaan yow nga ne nga ne lan yow borom kanam gu réy doom bàjjen doomu nijaayam nga ko ñaanee rek mu dal bilaay ndeysaan yaayam ak sama papa bokk benn baay baay sëñ Touba bilaay lu ma am yéen la lu ma am yéen la baay sëñ fii laa fii laa nekkoon mu neex bay bëgg a dee lu ma am dama koy bokkee sama maama ngi bul jooy tey na kontaanal moom tey moom du bésu jooy bésu bégte la ndax cant yi ñëpp dañ maa ne carrément demal tali karo ba mo gëna poser mo gëna neex nga défé ko fa ma len man bi may jamb si wasaabu fi la ko jambé ci digg kër gi fi la ko solé fi la ko jaayé nga ñaanal ma samba ñaanal ma mu réussir si wasabu mu réussir luma am fi la koy défé luma am fi la ko indé xébuma ma leen yoon té buma ma naré naree yalla buma yalla ma may dara billahi baas nak mi ngi ni di wacc ñu ngi ni di wajal di dërmal borom baas yaa ngi nii ma sha Allah asa ngi ni and ak équipe as wan ma ginnaaw waaw waaw ànd ak équipe am gis ngeen mariage ngénte lépp lay baas baas bu jaar yoon tey dëkk bi dina yëngu à tout moment dañ koy direct ci kanam ñoo ngi fi heure bu nekk ñoo ngi fi nag yi tamit ñu ngi yeewe ma ne ko nag yi tamit ñu ngi yeewe ba tey mi ngi wàcc ñu ngi wàcc nag dëkk baa ngi nii de barki sëñ Touba Leuz moo indi lii lépp de yaa am jom nag barki sëriñ Fallou Mbacké tegoo ma bët boo ma tegoon bët doo ma indil dara sama waa ji kenn du yow yaa daaneel boisson yi de yépp yaa ko daaneel nii ak xeeb Serigne Fallou mm. ndax doon waaye Serigne Fallou weesuwul man jeeg bi trompoin bi Serigne Fallou teral ma ci màggalam gi Kazu Rajab mu jox ma borom kër waaw waaw ah, ay waaye Serigne Fallou Serigne Fallou ku ko jox bopp mu jox la bopp deuxième dame deuxième dame madame Diouf ñaareel bi ay kaa bi nii rek la def ñëw ah, ah, sama rakk bi nag tubaar fa kàlla macha allah ne la dindal ndox rek ne la dindal sago ndax foo ma fekk nag lii miin naa ko ci yow mm. xeeb naa ko trop ndax damaa ko gis ci doogu jóge mais loolu mooy dëgg yaa ñu baax yaa yëkkati sa micro bu dis ba xale yi di ma woon na maam a ngi lay bàkk ma ne ko na ma koy wuy ji ëpp na man sama tur rek laa man sama rakk yónnee ma ko awa ndaw ma ko yónnee. barke Serigne Bamba barke Serigne dëgg la de ma ne ko du may woo may wuyu ma ne ko dëgg la de sëñ hmm. Fallou ñëpp la boo bàkkee du woote sëñ Fallou ñëpp ñëpp lay wuyu si kaw bu somi ci kàddu gi bàyyi Serigne Abdou Mbacké bàyyi Rafaani dëgg la de bàyyi Serigne Abdou Karim tubaarkalla ah. macha allah eh Serigne Fallou ku ko jox bopp mu teral la ku ko bëgg mu teral la bàyyi soxna waalo tubaarkalla macha allah moom lañ duppee maam waalo mi dëgg la de yàlla na jàmm yàgg moom tur yu baax nañ ñooy bokk wër yu bon yaa nga ci orloo sa ba te dañuy xaar dëgg la de boo doonee waxkat mhm. di wër di wax lu ne lañ lay jiñ ci àdduna mais lu lay jiñ dara du ci dëgg dëgg la te firnde baa ngi nii Kazu Rajab yàlla jox ma borom kër ma rëkk Sadji et eh, deux madame dëgg la ah. eh. ah, am nga ci droit nag waaye nag